ay waay jaxatu sama turandoo bi yaa ngi nii maa la kenn du yow ah dara man kay saway naa mën am lu ma for rek sànqee moom hmm, naa liggéey nag booy gaboo mënoo ma de ah, man yàgg naa liggéey chantier de yàgg naa liggéey <laughs> naa liggéey ay chantier ay ménébul ñu may fay junne deux mille cinq cent ah. waaw wax nga dëgg <laughs> booy gabon booy gabon dara mais eh, gabon dëkk bi dafa metti ah, dëkk bi da xëy si boobu ngoon mais pour nga li nga lekk sa problème la wóor na yàlla dëkk bi metti na booy gabon baa da fi bay bi ah daanaka moo ni sa sànc bi ba lii ma gis nii moom yëpp ci la bokk ah ah mais dara comme ñëw naa ba pare kay on ne tue mais on ne nous déshonore pas salaamaaleykum. liggéey ça va ça lii mooy liggéey bi. xam nga dañ ko mën léegi mën naa laa koy liggéey. ah. damay suur na rek. ah waaw comme yow da ngay commencé moom mën a léegi man damay yónn birig wala anam. ana birig lépp ah? waaw lépp ngay def bisimilah. yéen birig da ngay dagg fer. Hmm. ok defar béton. defar ah? waaw. man yàgg naa liggéey sànce. yàq daal i ci weeru koor nekk nag ñoo nag nag de nag nag oy wooy dañ koy ranger Wossama booy Gabon est-ce que du ma jël pause tuuti ah ah lii kay ah, lan ah yii yëpp ci la bokk. te liggéey bi na miti jàll ah ah. jëkkër mosoo war koo fonk gis nga nag booy gaboo gis nga yow xaaral yow moom foog ma wax wóoxoo wóoy liggéey bi nag da ngay kii ah lii moom mbaa dinaa ko mën a continuer. déet lay fay nag ah déet fay ba ci lan mais li ah. liggéey bi noonu la demee nii. ah. ni mu mutuelle. tubu suuf. gis nga man bu ma mënul da bàyyi nga fay ma sama xaalis suuf na ma dem sama yoon de lu leer laa la wax. xëy léegi yow fii ñii lu nu soxla rek da ngeen ko xel di àndi. waaw voilà yaay xel di mélanger yaay jël ciment bi yaay def. maay def lu mélanger. waaw. voilà. mu da ngay tourné kii rek jaxase ko d' waaw yow lii la la. day liggéey tibal. non man yow déedéet sotti naa ko kay yow yaa war a yóbbu. barke yàlla boo ko sottee boo bi kenn waxu la ci yow bokk. su ma ko bëggee ba loolu gis nga nag yow yow xool yow daal yow da ngay doon lu ma fa sama xaalis lu ma fa sama xaalis ay waay jaxatu sama tóondoon yaa ngi nii maa la bëgg kenn du yow